Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum wa senegal ak doomi senegal fépp fi ngeen mënti nek si adina bi Ma ngi len di ziyara, ma ngi len di balak di ko sakku ci kedd ku ne ci yeen. di ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu defal len jamm fépp fu waay mënti nek. Tay le samedi 17 euh, décembre 2022 waxtu wi may wax ak yéen euh, midi 30 jotna ci ndakaaru ak li ko wër mbokk euh, li waral jakarlo bi moy euh, depuis quelques jours bëri ngeen sénégalais yi ngeen xam da ngeen ñu interpeller davantage si ay sujet né ñu il faut ñu wax ci parce que foog ngeen ni c'est de l'intérêt du public pour nous jox leen information yooyu information bi traité nak sunu confrère yu Walf euh, émission balance bu Walf tek euh, sénégalais yi bëri ñi nga xamné entrepreneur ñu euh, si ñi nga sax dem nañu ba ñu la personne nit pour mu ci na sénégalais yi nga témoignage bi nga Malick Niang du moins euh, def na ko ci plateau Walfadjri daw na seen yaram tax na ñu bari ñu ni ñu euh, il faut ñu wax ci tax na Kéwoulo xuus na ci ki gendarme bobu nga xam mom lañu la won ràjjee ma jox leen quelques euh, minutes de vidéo pour ñi nga xam ne xamuñu ban sujet la. les remercier ci invité bi nga ma invité. di am contentement ak cofeel mën tok tay pour waxtaan ak askanu Sénégal ci dossier bi nga xamanteni ni moo dox ci diggante Adji Sar ak Ousmane Sonko di waxale aussi li nga xamanteni man sibir naa à la gendarmerie aussi. voilà bu fekkee ni leer na ci bop yi ban sujet la ni wax modi euh kaaw mbokk bobu nga xamné togon na ci émission balance expliquer ni ki élève euh,

bon amna ñi nga xamné bu leen ne euh, gendarme ñu bëri foog nañu directement gendarme la ñu fàttali ni pour nga nek gendarme d'abord il faut nga def sa service militaire amna yeneen voies yi nga xamné nit ñi ñu ngi ciy dugg gendarmerie euh, notamment voie de euh, concours officier wala yeneen canaux mais surtout pas nga xey jógee bango rek nek gendarme parce que bango après formation initiale bi

dugal ko fële nga xam ne cabinet gendarmerie mais lu expliquer déjà problème parce que sélection gendarme euh, pour dem militaires? militaire moom jàlluloon dafa nekkoon fële ca parcelle fa euh, sergent recruteur mu daal di ne man ma ñëwoon fële pour recrutement bi waji ji ne ko comment comme jëluñu la mu ne ko dedet, waji ji fexe ba ko ci armée muy benn bo xam ne euh, lu doy war la buñ newul na xel mais sélection du ben sergent bu sante fay Moy dox ci bi dem gis ben nit mu jël ko mu daal ki ko Mui euh, mu euh, armée

armé nek gendarme pour mën a teral euh, woy juróom ndax euh, foog naa ni nee na euh, baayam su ma fàttewulee génn yaayam la bëgg teral ñu indi len ni en 2017 en 2017 problème yu El Hadj commencé wul ci 2021 ci fatili 2021 dafa amone garaaw opération bi nga xamné mars 2021 ak coowul adissar ben gendarme bu GIGN euh, euh, Tonika Mohamed Tonika bi grenade bi explosé ci loxo bi loxo bi dag la ki nga xamné moy Elage El Hadj Malick dadi daa di ubbi di ñaan sénégalais pour ñu dimbali xaalis bo xamné daf ko nara jox ki nga xamné moy Malick euh, comment on appelle Mohamed Tonika alors que Tonika yónniwu ko Tonika li nga xam ne lu euh, information yi nga xam ne amee nañ ko moy dafa am euh, benn waa joo xam ne fàtte mais mom surtout mom mo spécialisé wu ci affaire ouverture ou cagnotte le euh ki nga xam ne mooy El Hadj Malick Niang njëkk ne ko Jim xawma nan euh Hannibal Hannibal Jim mu ni ko pour mu ubbil ko mu jappalé ko ci affaire ouverture cagnotte ko ne ko pour ñu ubbil la cagnotte il faut que ñu autorisation nit ki nga xam ne mom lañu bëgg a ubbil donc il faut impérativement Tony d'accord accord ci lolu il faut impérativement ñu am carte d'identité identité Tony wala ñu mel puisque mom moy bénéficiaire bi bi mu waxtaanee ak ki nga xam ne mooy Hannibal mu jël ci information li waa def moy El malik Malick mi nga xam auxiliaire de gendarmerie la mu que sous les drapeaux pendant la durée légale de son service dafa xëy dem ubbi cagnotte sans que mu am ci autorisation wu Tony mu am benn site internet wala boog benn chaîne YouTube bi nga xam ne mu ngi tudd jàmbaar yi foofu la dem mu ubbi fa compte mu ubbi fa partagé fa link bi ba nit ñi commencé yónnee xaalis mais lu wóor te muy dëgg moom moo fa njëkk dugal xaalisam muy 4000 francs comme ni mu ko waxee ak ñaar ci ay xaritam au total xaalis bi nekk 6940 francs CFA moo nekkoon ci compte bi nena bimu rendre compte ni def na erreur wala bok bimu rendre compte ni yëf yi dafay nar a le la jéem wo wa delluwaat ko par Express pour mu supprimer arrêter cagnotte bi mais ci diggante bi tonika gis na wala bok nit ñi wax nañ ko ni l'existence de cette cagnotte là comme moom Ubi ko te yónniwul ko ko ubi tonika mo dem porter plainte fele nga xam moy section de recherche bu gendarmerie wax ni amna kenn ko xam dafa ubi cagnotte ci sama tour te amul ci sama autorisation ma fatlé ni encore téléchargement euh Copar Express Copar Express dafa xëy mom mu dem dem téléchargé ko ubi ko te amul ci ben dogal biñu défé réquisition ñi nga xam moy wa Copar Express ñoo ñu daal di leen jox numéro téléphone bi nga xam mu ubi compte moo ubbi compte euh, collecte boobu noonu la section de recherche amee identité wu euh, waa ji El Malik Malick Niang sans que ñoom ñu xam auxiliaire gendarme la sans que ñu xam ne ci seen kër gi la nekk ñu daal localiser téléphone bi nga xam ni mu ubbi compte bi mu won leen ni waa ji mu ngi booru Nioro ci région de Kaolack ñu dépêché gendarme ñu dem jëli nit ki bi ñu ko jëlee ba pare indi ko ñoom lañuy doog a xam ne kii auxiliaire de gendarme la ñu indi ko section de recherche bu gendarmerie bi nga xam ne foofu la Tony Ka Mouhamed Tony Ka muy gendarme bi nga xam ne loxo bi dagg na foofu la porter plainte en matière d'enquête bu fekkee ni yàgg ngeen suivre Kéwoulo bari naa li ma leen di wax lu ñuy wax une découverte incidente nous avons une découverte incidente une découverte incidente mooy lan mooy ngay seet lenn nga dem nga dem gis leneen loo ne ak li nga daan seet tax na bi ñu euh, ki nga euh, bureau ci bureau euh, gendarme yi ñu di ko auditionné le jékki-jékki ñu gis benn gendarme bu dugg ci salle bi mu fekk Mohamed Malick Niang tok muniko ne mais yow yow musuñu la won japp indi la fi Malick Niang ne ko du man si mu la gendarme bi waji num tuddu muniko tudd mu Malick Niang la tuddu Malick Niang elage Malick Niang mu ngi juddu en 1997 waji ne non mu puisque mom gendarme bi nga xam meun nañ wax turam mais puisque mu ngi en exercice la plupart du temps lu muy def en infiltration

sa sœur bi reconnaître na yow la le 20 euh, le 20 juillet 2021 Malick reconnaître devant les gendarmes enquêteurs ni en fait en 2017 en 2017 lan mo en 2017 bari ngeen sénégalais ngeen da ngeen di seen man ci ab nit woo la téléphone ne la dafa am facture téléphone bi ngeen xam ne da ngeen ko war a fay fayu leen ko mu ne la man je suis un agent de la Sonatel woo la wax la facture bi da nga war a fay mu jox la code fekk code bi ñu lay jox du kodu dara lu dul kodu orange money bi nga xam ne ñoom fa la ñu bëgg a jaar pour ñu récupérer sa xaalis donc ki nga xam ne euh, mooy euh, so benn soxna boo xam ne def nañ ko ko jël ci moom 33 mille et quelque ñu fayloo ko benn facture parce que période boobu lan moo xewoon téléphone am dafa nek en dérangement mu wo sonatel bu nyom ñom wax lu ne motax fanioyo ci biir fan yoyu bu ko nit wowe ne ko sonatel mo lay wo pour mom réclamation yi mu defon mom lañ koy tontu mu di jël téléphone bi mu wuyu mu ne ko da nga wara fay amna facture insu dessus 33000 et quelque ku jigen ki fay bu ku jigen ki fayé ba mu pare mu xamné dañ ko arnaqué mu xamné dañ ko arnaqué euh, mu sona mu wootewaat sonatel ni ne ko non amna facture impayé mu ne non fay nako mu xam dafa dañ ko arnaqué mu daal di joxe numéro téléphone bi nga xam fofu foofu la yónnee xaalis bi légui nit ki li muy def moy bo amé sa téléphone portable nga dugal puce téléphone bu nekk dafay ànd ak numéro email bu ngeen xolé li di ngeen gis benen numéro numéro téléphone bi la bo ci dugalee puce numéro puce bi da fay bolé ak numéro téléphone bi dañuy xam téléphone bi ak euh, numéro email bi numéro puce bi ak numéro email bi ñoo nekkoon à telle heure tel endroit tel moment léegi nak bi mu récupérer xaliss bi fay rocci téléphone bi mu changer benen puce téléphone biñu défé réquisition Sonatel gendarmerie def réquisition Sonatel limal ni leen 2017 la la leen Sonatel défar rapport d'enquête bo xamné sénégalais bu bëgg rek mën nañ ko ko jalal wala ñu télécharger. ko bàyyi ko ci site Kéwoulo ku ko bëgg ku na mun nga ko téléchargé parce que victime yi bari nañu ci numéro bi nga xamné ne moom lañ doon utiliser diko ko ay nit mais téléphone bi ñu utiliser won mo permettre aux gendarmes pour que nous xam ni euh, ci numéro tel tel téléphone moo utilisé woon pour nous récupérer Khalis. bi et puis nous ngi récupérer Khalis yooyu yëpp fële ca Kaolack mais surtout ma fàttali leen ni euh, gis ngeen tey bu ñuy wax waxu euh, comment il s'appelle gaa yu moi mu wa jamakuta gaa yu bëri nga xam ay boru kaolak lañu nek surtout ci quartier biñ nane jeune yu bare dañuy spécialisé wu ci lu mel noonu woté ne la Sonatel la woté la ne la tel la di jël sa xaliss donc mom ki nga xamné mom mo jël numéro boobu mom mo jël xaliss yooyu ci quartier bobu lay woté taxna euh gendarmerie dadi euh gendarmerie dadi def réquisition ci numéro téléphone bi nga xamné mom lañu envoyé won Orange Money bi numéro téléphone bobu nekkatul ci biir euh, ci biir euh, numéro puce bobu nekkatul ci biir téléphone bi mais numéro email téléphone bi gis nañu puce yëpp yi nga xamné ñoy jaar ci téléphone bi ñu daldi identifier téléphone benn ci puce yi bu nek ci touru Elage Malik Malick 2017. nonu la ko section de recherche dem jëli ñu indi Elage Malik Malick en 2017 arrêté ko euh, yóbbu ko bureau doyen des juges. Euh, dossier d'instruction en 2017. Il y a bureau doyen des juges. Malik Nyan, été Kasso pendant six mois. Nous avons une liberté provisoire. Comme vous avez dit, vous avez dit. Nous avons une liberté provisoire. Nous avons une liberté provisoire. Nous avons une liberté provisoire. 6 mois ci prison bi ba génne leen euh, pour bañ len jox ben ne serait-ce que erreur Malick Niang tëdd na kasso loolu nga xam moy euh 2000 2017 tëdd na ci kasso bi mu ci tëddee kasso mu def non astafurlah ñu condamné ko euh, deux ans de prison, dont six mois ferme. Deux ans de prison, dont six mois ferme. le 1er août 2017 nous avons jugé le 1er août 2017 nous condamné à deux ans de prison dont six mois ferme ça veut dire quoi ça veut dire euh, pour deux ans de prison te balaa ngaa balaa ngaa dañ la tëj deux ans de prison tëdd nga di nga war a tëdd six mois ferme mais boo defatee lu mel noonu di nga tëdd yeneen weer yi nga xam ne ñoo ci des comme ça un an et demi bés boo recidivé bés boo defatee lu mel noonu nañ la tëjaat deux ans yu nga tëdd mais tey deux ans de prison six mois ferme la lañ ko condamné en 2017 le premier comme ni ma leen ko waxee euh, le premier août 2017 El Hadj si vous étudiez étudiant en première année chez l'Université Cheikh Anta Diop bu Dakar arrêter la arrêté jangam. parce que gis ngeen bu mu ñu expliquer El Hadj de 2017 à 2019 lay wax ni une ci campagne électorale bu Pastef ñëw na ba ma photo ak Ousmane Sonko mais de 2017 à 2019 table rase la parce que le premier le août 2017 dañ ko condamné à deux ans de prison dont six mois ferme mu tëdd ko léegi bi mu faut foofu la problème amé. N'akala ko koo xam pour escroquerie mou def six mois de prison dont deux ans ferme mu war en cas de récidive koko nakala la def ba mu dugg gendarmerie loolu moy coow li moy la porosité euh, de comment on appelle des casiers judiciaires mais dafa am lo xam si njalbeen laa lan ko waxoon gen fàtte ko El biñ ko danoon a recruter jëluñu ko benn sergent la tase fële nga xam ne mooy Parcelles sergent boobu moo ko dugal ci armée bi naka la def lan la waxante ak sergent boobu ba sergent boobu dugal ko ci armée bi c'est la grande question boo xam ne El Hadj Malick Niang war na mën a jàkkaarloog sénégalais yi mu tontu ci mais voilà quelqu'un qui n'aurait jamais dû dugg ci biir armée ñëw na en 2020 parce que mu ngi dugg ci contingent 2020 2022 le deuxième contingent pour 2020 le doug armé. condamnation à deux ans de prison dont six mois ferme mu de ci six mois casso. bi mu génnee casier judiciaire Bouverge vierge pour les intégrer armée Niko di bango bango Gaï yi pour auxiliaire élève auxiliaire gendarme donc passé bon, mu génn keroog section de recherche et moom reconnaître Le procès verbal bi mu ko reconnaître numéro 353 du 20 juillet 2021 El Hadj je reconnaître son passé donc si bu avez dit wax ni dañ ko inventer passé dafay doy waar puisque l'escroquerie est ko en en 2017 la plainte bi nga juillet 2021 Mohamed Tounika déposé na escroquerie la encore donc il nekk en en situation de récidive légale tax na bi Jacarlo, jàkkaarloo bi ko jappé kérok déféré ko dañ ko encore sous mandat de dépôt une deuxième fois loi pour les fonctionnaires c'est très clair buñ la condamné ne cesse que trois mois bu ñoy dafa am ay sanctions disciplinaires yo xam dafa la wara téggu ba ci radiation mais ci dafa mel ni tout euh, El Hadj Malick dans cette période là dafa mel ni stagiaire bu ñëw sa bureau de stage de stage bu la neexee nga garder ko bu la neexee doo ko garder donc stage bi jeexut léegi pendant trois mois tëdd na ci kaso bi wala bokk li ko ëpp dans cette période là dafa bénéficier li wax liberté provisoire dégg ngeen ko ma delluwaat leen vidéo bi dernière vidéo bi mu def nee na daw na dafa nekk fenn foo xam ne du mën a wax mais la réalité elle tout autre dinaa leen ko expliquer léegi-léegi ma bàyyi leen d'abord ngeen déglu ko ci kaddu gu mu ne après ma invité ñëpp ñu delluwaat déglu vidéo yi nga xam ne def na ko ak waa balance comme ça di ngeen ci mën a def seen idée mais it rapport bi nga xam ne waa Sonatel ñoo ko ñoo ko def 2017 ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit avec tous les numéros de téléphone nit ñi nga xamné escroquer nañ leen ci période bobu bu ñu bëggee xam ndax moom El Hadj Malick Niang bokk na ci ñu escroquer numéro yaa ngi foofu di ngeen ko xam ma jox leen témoignage bu mu mujjee def ak waa Balance. salaamaaleykum ñi nga xamante ni ñooy suivre Walf TV. tey nag xam naa ne du ma mën a teew ci émission bi parce que permettre tuma maintenant may génn di wax wala di dox fu mu neex actuellement parce que je suis en danger après émission de blé passé dama jot des menaces menaces yi ma jot moy que euh, dañ ma wo téléphone di may menacer boole ko aussi à 10h37 dama subir li ñuy wax attaque bi nga xamanteni sama téléphone la mooy localisation. donc ñu dal di supprimer lepp lo xamanteni document la mi fichier mi photo mi vidéo lepp sama téléphone bi dañ ko raxas jusqu'à dernière bo xamanteni mais mel appareil bi non la voilà dégg ngeen ko nee na dafa nekk dans un endroit boo xam ne mënut a wax mënut a def dara la vérité mooy que même tey contact bi nga xam ne dafa volontairement il a créé il a il a dafa dafa créé volontairement sa disparition kenn waru ko kenn seetu ko parce que gannaaw bi ñu ko joxee liberté provisoire la deuxième chambre correctionnelle bu tribunal bu Dakar dafa prévoir juger El Hadj Malick Niang ci janvier bii ñu jëm janvier bii ku tribunal nga gis ko rôle juger dans l'affaire bi ko Tony Tony euh, comment on appelle euh, liberté provisoire donc dañ ko juger ci la anticiper mu créer système bi daw ci bi compte Instagram ni mu jox euh, ku nga faux compte Instagram la leen jox ba ci numéro téléphone boo xam ne moom lañ ko mën a joindre amut adresse email bu ñu ko mën a joindre amut benn compte Instagram la te compte Instagram boobu bi ñu ko vérifié dañu gis ni faux compte Instagram la léegi nag waxuma am na part de responsabilité ci lii wala dafa bëggoon a escroquer ni wala déet mais dafa am benn passé boo xam ne il faut que sénégalais ñu xam ko en connaissance de cause léegi nag ku ci taxaw bëgg na ko dimbali yow yaa xam ku ko bëggut a dimbali yow yaa xam mais ngeen xam en connaissance de cause ce qui s'est passé dans cette affaire 2017 ça n'a rien à voir avec la avec avec l'armée ça n'a rien à voir avec la gendarmerie étudiant la bu nekk en première année de droit si je ne m'abuse fële université bu Dakar bu ànd ak mooy gars yi nga xam ne dañuy woote téléphone naan la facture orange wala dañ la war a couper wala dañ la war a kii paa bi nee na ñu woo paa bi ne ko fayal facture courant bëri mi Sénégalais yoo xam ne am na ñu appel yu mel noonu wala ñu ne la Sonatel moo xëy tey da ngay gagné da ngay gagné loto wala da ngay gagné lii da ngay lii ci yooyu lan ko jàppe woon li taxoon ñu jàpp ko dafa am benn ku jigéen koo xam ne turam mu ngi ci rapport bi bu leen neexee mais bëgguma joxe turam ni ak numéro téléphone am mais tous les de téléphone ñu ngi ci ñi nga xam ne numéro téléphone bi nga xam ne moom lañ doon utiliser moom surtout ñu fekk ko ci moom ñu fekk ci turam ñu jàppee ko numéro baa ngi ca ci noonu lañ ko jàppee ñu jugé ko a deux ans de prison dont six mois ferme yi nga xam ne tëdd na ko anomalie bi mooy koo xam dafa am passé carcéral naka la fexe ba dugg ci biir armée bi naka la fexe ba dugg biir gendarmerie loolu moom mooy wax ji sénégalais war ko poser parce que dañuy waxee euh, euh, euh, la porosité de des frontières dafa dem ba ci porosité extrait de naissance yi ak papier yu sénégalais casier judiciaire normalement képp ku ñu condamné ñu dugale ci kaso bi dañ ko war a bind ci sa casier judiciaire mais naka la moom naka la def ba am casier judiciaire bo xamne bindu ñuko ci c'est la grande question mais dara bu mu len ci bett parce que néna len mom biñ ko do recruter ken jëlu ko mais dafa tassé ak ben sergent bu sant fay mom ay kaddom la en contournant toutes les règles parce que sélection normale bu régulière jëluñu ñuko mais ben sergent bu tuddu fay mom la taseel Parcelles Assainies kooku moo ko jël duggal ko ci armée bi donc muy deuxième anomalie warulon dugg dugg na gendarmerie troisièmement les faits qui ont été condamné en 2017 faits yu mel la défaite encore même si c'est est de bonne foi la Tony mu ngi gendarmerie gendarmerie moom mu gendarmerie pourquoi avoir oublié contre compte cagnotte ci Tony doo dem nga le Tony mais yëgalul Tony Il faut oublier contre am partager ko ci ben site ci ben page YouTube bu tudd Jambari. d'ailleurs waa a nga un mom mo site compte compte YouTube de jambar yi.

muniko ay gendarme ñu ñu légui légui jël ci ont Malik fi diko yobbu ko ne sa sœur mu ngi ni la doon waxal jox ko sœuram mu reconnaître la mais cette fois ci 2017 escroquerie la jël nañu yu mais surtout ku à deux mains parce que liberté provisoire la dañ ko war a juger mois de janvier bi ñu jëm janvier 2023. anticiper na certainement bëggul taxaw mais bëgg na ci profito ci élan de solidarité bi nga xamné ne nañ ko légui Sénégal ko am problème ñu nañ ko défal cagnotte cagnotte bobu nak la espérer cette fois ci motax mu lancer opération bi ki nga xamné moy régler affaire cagnotte yi mooy Jim comme ma euh, Hannibal Jim et consort ñooñu jëm nañ ko contacter sax mais limu leen jox tay moy compte euh, Instagram bo xamné buñ ko vérifier faux compte Instagram la ñun El Hadj Malick Niang ñu ngi dossier bi ñu ngi rapport bi té jox naa leen numéro PV bi nga xamné ci loolu lañ ko mujjee entendre moy euh, PV numéro 353 du 20 juillet 2021 mom mu ngi ci reconnaître ni mom la naka la mën taxaw tay jakarlok sénégalais né dañ ko créer un passé carcéral bu amut deuxième chose bo xamné da ngeen ci baye xel bu baax numéro de téléphone bi ma len jox peut-être dina ba am ño xamné garder gardé nañ ko 280 80 80 parce que beaucoup de gens numéro bi muy sonné 280 80 80 tam nga foog un numéro officiel la mais numéro bobu bokk na ci numéro yi nga xamné dañ ko incriminer numéro bi buñ défé c'est recherche lañu retrouver ni numéro bobu mu ngi ci ben ku jigéen ngeen fàttali 2017 mo porté plainte gannaaw ko ñu ko fayeekuloo 33000 et quelques francs Yo xamné ne Orange moné ñu naan da nga wara fay facture ak affaire yooyu Mo porté plainte mo taxoon ñu def réquisition japp ben xale bu góor boo ne étudiant la en première année muy El Hadj Malick bi mu ci teudé kasso outil na casier judiciaire bu vierge mu fexé bu dugg ci armée bi ñu jël ko yóbbu ko gendarme auxiliaire gendarme auxiliaire encore du gendarme mooy ñi nga xam ne dañuy jàppale gendarme yi c'est comme les policiers auxiliaires de police duñu ay policiers dañuy jàppale ay policiers léegi nag ci diggante bi mu nekkee auxiliaire de gendarme la defaat coup bi ak ki nga xam ne mooy Tony Mohamed Tony Ka moo porté plainte ñu jàpp ko yóbbu ko ci kaso yi bi ñu ko jàppee nag yóbbu ko ci kaso yi liberté provisoire la nekk actuellement dañ ko war a janvier 2023 léegi nag sénégalais yi seen yëf a ngoog yéen a xam nu ngeen koy analyser yéen a xam nu certainement y a eu beaucoup de manquements parce que bu manquement amul benn sénégalais nanguwul nit koo xam ne euh, jàpp nañ ko ci lu mel noonu en 2017 mënuñu nangu mënuñu comprendre comment nit kooku na mën a duggee biir gendarmerie biir armée ba muy retrouver nekk élève auxiliaire gendarme ba mën a euh, gérer yenn nit ñi en gros voilà l'affaire El Hadj Malick Niang qui est attendu devant la deuxième chambre correctionnelle du tribunal de Dakar pour jugement. Pendant ce temps, Néna euh, parce que dañ ko ray a wara khamalan. ko war a xawma le expliqué na leen it euh, téléphone récupérer bon peut-être technologie la technologie seegul si ñun mais il faut que nous nous ni euh, euh, ñu ñoo gën a mën ci situation nga xam bëgg xam kan la waxal ñan waxal lan à forte raison mi nga xam gendarme euh, détenteur de quoi que ce soit te la en garde à vue la première des choses bu gendarme di def puisque dafa dans un cabinet de dans un cabinet euh, dans un cabinet comme ni mu ko mais buñ la garde à vue surtout ci lu vous mel ni wàllum escroquerie lu ñuy njëkk a def mooy dañuy nangu sa téléphone dañuy nangu sa téléphone képp koo xam ne xanaa ñu ñu wax la à telle heure na nga ñëw wuy si nga mën a sànq say téléphone comme ni nga xam ne Diop Isaac defoon na ko ci coow aji Adji ak yooyu mais dégg ngeen li nga xam ne euh, sunu confrère bi Pape Alé Niang temps yi ñu jóge je policiers yi jël nañ téléphone am donc moom bett nañ ko ci dëkkam fekk ko ak téléphone bu fekkee ne am na ay rapport wala ay dossier confidentiel wala sensible yoo xam ne nekkoon na ci téléphone am gendarme yi keroog bin ko bété fofu ci deukum jëlee ko ci tabaski bobu juillet 2021 euh, bobu ñu jappé ko ci dëkkam war ko transférer indi ko section de recherche section de recherche amna ñu suffisamment doute pour jël lepp lo xamné mo ngi ci téléphone donc bëgg lu wax leen ni après la lañu la ba effacer à distance ñu effacer téléphone lolu ay léeb ak lippoon la kooku mëna naa leen ko wax parce que. man li nekk sama téléphone moo gën a compliqué junni junni junni yoon que moom li nekk ci téléphone te kenn mënul à distance récupérer li nga xam ne moo nekk sama biir téléphone. donc mbokk yi en gros lii mooy l'affaire El Hadj Malick Niang euh, kenn ku nekk am noo koy déggee ku ko bëgg jàppale jàppale leen ko parce que sénégalais la bu nekk ci ay difficultés mais nañu xam yëf yi nu mu lu ko wundu ak nan la tëddee bon maa ngi leen di jox. Euh, dig dajé inshallah bala 17 h parce que sénégalais yëpp gis nañu MC Niass demna waxna len lim fo waxtaanee ki nga xamné moy capitaine Touré demna waxna len lim fo wax soxna si di madame tal wuy dina doyen des juges koko nak mom mo gàddu mom mo euh, mom mo def lu wax gàddu raw gàddu.

Achetez au détail ou en gros et faites vos livrets où que vous soyez. Vous avez aussi la possibilité de payer en plusieurs fois. Vous pouvez nous contacter pour le Sénégal au 77 444 62 22. Pour la France au 06 05 77 45 17. Retrouvez-nous également sur les réseaux Facebook et Instagram.